mooy maa ngi remercier exposant yëpp parce que dañu toll si jamono joo xam ne su fekkee danga am un projet boo xam ne peut-être am nga vision bi mais vision li koy mottali mooy ñi lay ñi àndax yow ñi lay accompagner donc euh, damay remercier exposant yëpp muy góor ak jigéen la confiance bi ñu am si ñun pour tàmbali lii parce que lii tàmbali la di ñaan yàlla ñu pérenniser ko ba nga xam ne bu ëllëgee le monde entier danañ fi ñëw donc damay rappeler rek que ñu nekk si benn plateforme panafricaine d'action Euh, ñu yebal Alsan qui est de la Guinée qui est là qui va prendre la parole ak d'autres partenaires yoo xam ne ils sont sous la région ñu euh, sont sont euh, sous région bi di remercier aussi Lou'Bess TV par son le canal de son PDG Abdou Aziz Fall parce que depuis plus de trois mois il y a des capsules yoo xam ne jot nañu ko def te lépp moom moo ko doon liggéey pour vraiment vulgariser le message et toute l'équipe de Lou'Bess TV de même que aussi la presse yi fi ñëw Euh, si couverture bi euh, fàttewuma si suñu frère yi nga xam ne ñu ngi suma ginnaaw ñu am solo ñoo xam ne aussi dañu ànd di liggéey lu mel nii président Fallou président Babou euh, président Malick Niang Lamine Gueye suma dëkkandoo Issakha Diagne le coordinateur parce que y a projet qui en cours bu ñuy wonee bu ñuy wax le le forum international des métiers de l'artisanat et la mode def naa ñi siy liggéey ñi ngi si salle si si présent ici donc maa ngi remercier ñëpp fàttewuma aussi waa u 2 de même que Cheikh Omar Mbaye bi jógee Saint-Louis bokk ci fédération nationale des agents touristiques du Sénégal donc je suis le secrétaire général Assou Sarr fàttewuma kenn maa ngi jégalu su ku ma fàtte rek maa ngi lay jégalu xam leen ne coono rek la di leen sant di leen gërëm di nuyu aussi waa golf ñu ngi fi teew par madame Marly mooy commune de golf elle est là donc ak képp koo xam ne foo mënta jógee rek vraiment fàttewuma la nañu xam ne peut-être situation moo tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim